aca sama gaay yi bomba waaw waaw Modiane bu Diofior Thieb Joal Modiane Diofior Thieb Joal ndeysaan arbitre sifflé na combat boobu arbitre waay puusal waay wala nga toog ah waaw Ujan Jofior ceeb Albi Joal bi cey ndeysaan combat boobu bu na neex combat boobu dina neex ndeysaan deuxième combat bi nekk Badara internet ehe Lamine Petit Sélé Yari combat yang ngi waa dara internet yëpp du moins waa dara internet Lamine Poté Sélé Bodiane Diofior ceeb bu Joal bi ñaari combat yaa ngi noonu si biir géew bi sama gaay cay waay ndeysaan acca wala déet arbitre nee na lii lan la diggante Badara ndeysaan Lamin Petit Sélé ci bu Joal Modiane bu Diofior bi ca ñaari combat yooyu na na Badara jël na ko lan la arbitre na combat bi aca waay borale cey waay bi combat Ari combat nga am noonu Di Tefess di jam ndeysaan Jambacounda ndeysaan borom 6000 càpp yi woho cay fii ci Diouf yor arrondissement drapeau ndeysaan sargal Ousmane Deb Diouf yor si Tafa Dior ngay ay ndaanan woho moƴƴani no moƴƴani wayi yertu addan no moƴƴani accanamin poɗɗi sene badara internet wayi ko ay combat bobu wayi xoolal combat e badara danna ko way fa pesey